communauté bu Wakaam ñu ngi waajal li nga xam ne moo di vingt-huitième commémoration ñëw ci nga xam ne moo di Mouhamed Seyni Gueye organisateur yi amaloon nañ ñi ki tey ab point de presse ngir waxtaanee wàccaay xew-xew bu mag boobulee ñu profité ci loolu waxtaanee jàngale ki nga xam ne moo di Mouhamed Seyni Gueye mu wax ne suñu boroom wax na ma ne naawoo jaamam yi si njub ragal yàlla ak sellal na ñëpp tënku ci ñetti baat yooyu bu ñu ci bëggee bu ñu ci tënkoo rek jàmm ji nu ñu sàkku dinañ ko am naataange gi ñuy séentu tamit dina yomb si ñun pour ñu mën ko am waaye suñ ko fi bàyyee nag bëgg a seet yeneen yoon wu ñu war a mën a jaar ak ay pexe yu ñu mën a lal te bàyyi fi santaane suñu boroom mu wax ne dañuy sonn rek du ñu mën a am fenn fu ñu mën a jaar fu ci ñetti baat yooyu jàmm ak jubal mooy thème bi nga xam ne moom la ñu tànn waxtaanee li nga xam ne moo di coow bi lëmbee Sénégal jamono ji bu dee ci Sénégal gi ñu nekk gis nañu actuellement ni mu yëngatoo ni mu jaxasoo ni mu tiisee ñëpp jaaxle nañu ñëpp yéemu nañu. te loolu waxoon na ko moom Mouhamed Seyni xalifa fi ardi ci ay déclaration alors kon nag ñu ni tamit ñu ne bon nañu jël thème boobu dégg nga waxtaane ko jaarale ko nag ci lii nga xamante ne ni moom la suñu borom tabaaraka taala jox ndawam di nga xamante ne mooy ndawal axiru zaman mu joxal jottale ko waa axiru zaman xew-xew bi nag dinañ ko amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu nekk foofee sa mosque de la divinité